ñi ngi masaw sëriñ bi sax waroon na fa yónnee suñu bokki dëkk bee di Tiwaawoon di mbokki jullitam di mbokki deretam xew-xew bu diis ba fa wàcc nañaan xam ne loolu mbas la mbas la mu rëy am nattu la nattu nag jullite ko moom mbugal yéefaru ko tax a jóg kon loolu nattu la waaye sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddu njaal di ko teg ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk ba di Serigne Babacar Sy Mansour alxalifatul am di tarixati tijaaniya ak mboolem njabootug Cheikh El Hadj Malick Sy gépp ak mboolem ña dëkk ci dëkk ba bayut kenn mi ngi leen di jaale ñooñu nga xam ne ay mbokk lañ di ñaan ña fa ko te ñi ci ëpp di ndaw wala bu fekkee du lépp itam day ci ëpp ay ndaw lañ suñ doon def leen li ñuy wax asalafu salih dawalu biw ndax ne ñoom toggaguñ leen jëf ba bàkkaar woon le waaye suñ doon bool leen ci min as-salafi as-salih